jërë ngeen jëf mbokki Sénégal mbokki bitim réew asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakato yéen ñi koy suivre lamb actualité lamb tey di ko suivre ci télévision bu mag bi nga xam ne moo di Bawal TV jeudi le premier septembre jatum 2022 ñu xëy ñëw ak yéen ci journalu sunu lamb fekkati fay affiche am solo après Balla Madi Diallo attaqué Brassens il est incapable de guerre le CNG journalu sunu lamb xamal ñu lu le mel Keba Kanté président ressortissant des fatigues Sall recevoir les de la lutte journal sunu lamb ba xëy xamal ñu lu ni mel waaye CNC imaginative violence hors de l'arène journal sunu lamb ba xëy di ñu xamal ne visage de rêve pour la saison 2022 jàpp 2023 waaye professionnalisme bu rëy la ñuy xaar ak côté des mbër ci côté ñi nga xam ne ñoom ñoo di promoteurs yi ba ca sax ñi nga xam ne ñoom ñoo di tëggkat yi day ndax rek hors violence bi nga xam ne nii nemmeeku nañ ko ci arène nationale CNC de lutte moom ñoo xëy xamal lu ni waaye ba tey journal sunu lamb di ne day malgré ginnaaw bi mu essayé ci digganteem ak ki nga xam ne ni moom moo di rëg-rëg day waaye taxul ba tey mu teg bëtam ci ki nga xam ne nii day moom moo di Diène Kaïré moom moomee di guy gi écarté na bu baax ki nga xam na nii moom moo di Diène Kaïré la mu gis rek a bëgg rek jàpp na ne mooy ki nga xam ne nii moom moo di Eumeu Sène sëtu Samba Xoyaan waaye ba tey journalu sunu lamb ñu ay leeral ci diggante Bës Pro ak ki nga xam ne nii moom moo di li Nicolaï en 2018 ba ñuy door waaye ba tey journalu sunu lamb xëy beneen avis diggante général bu Malika Malika ak ki nga ne nii ah, moom di général bu Malika ak ki ne nii moom di Bour Sine journal sunu bu xëy na ci ñëw def jàngat bu yaatoo waaye Tigre ak ki ne nii moom moo di Dougar Peul journal bi xëy di ñu xamal ne le 12 novembre ci atum 2022 la boobu le combat waaye match contre Guédiawaye Modou Lo très attendu nekkoon nañu di ko xaar waaye journal bi xëy di ñu xamal ne moom Guiro Seras moomee day un bon footballeur footballeur bu mag moom Guiro Seras waay bu mat sëkk moom Lirou Diane journaliste sunu lamb bu xëy ñëw ci moom Jacob Baldé ak xam ne nii moom moo ndigal le ci atum 2022 Baba un promoteur en force journaliste sunu lamb ba xëy lu ni mel waaye ki xam ne nii moom moo di Boy Gueye ak ya xam ne nii moom moo di Boy Gueye defeem daal moom moo di John xam ne nii moom moo di Ibo mécanicien de Kati Sokh 2 ci atum 2022 waa Diourbel production ñoo tëgg lu ni mel ca njiit la di xam ne nii Eccelgom ñu fas yéenee ñëw Ndakaaru seen saison bii di ñëw saison 2022 Jurbel production ñu fas yéenee ñëw Ndakaaru def fi lu toj def torojo morojo waaye ba tey ci xëtum sunu lamb marle ki xam ne nii moom moo di soq journalu sunu lamb ba nga xamal ne combat boobu le 14 janvier la ci atum 2022 sunu lamb ba xëy xamal ñu lu ni mel demee fi nga xam ne nii moom moo di ca jal gati lamb kañ fay fekk moom moo di sita ma nga ca salle de tarkindaaya la mu xam le moom moo di Papa Sow dinaa ko jaay doole ba mu xam ne dama koy jaay doole te ñun ay xale lañu ba pare am doole teg ci am fit mën a bëre yéen ni koy suivre lamb actualité tey koy suivre ci télévision bu mag bi nga xam ne moo di Bawal TV du ne kenn bu ma topp waaye ku joy dëp la ko dale Thiès xombal bambay altundangal mag sew kabak laañaay kër daama kër seen jalndul ak fataar kër yib drayasin sam ngewel sambekol dala ba daa xafoor siyaare sëriñ ba dellu siwaat Kajoor ak Bawal Siin Saalum Fuuta ak Jolof ñëpp actualité lam bëgg Baol TV reste chez vous c'est que ndaanaan troisième catégorie à Ségouloir bu kenn dem